bésu tey bi njiitu réew mi demoon fa nemmeeku leen waaye lam leen xamal moo di seen commune ba dañ koy soppi def ko ab département ginnaaw jafe-jafe yu mu fa nemmeeku bokk na ci wàllub assainissement ñu déglu ay doom moom njiitu réew bi ci micro Idrissa Diémé mooy Kër Massar xam naa jafe-jafe yi fi nekk d'abord mbooloo mi fi mi fi yeewoo bés bu ne mooy population densité population bi mooy doomu aadama yi yeewu ci kilomètre carré bu ne nekk na lu j dayoo boo koy comparé ak li des ci biir Sénégal wala ci àdduna bi kon nag Kër Massar laaj na ma taxawu ko taxaw bu bees moo tax ma ne fas yéene naa ñu def ko département moom ci boppam Kër Massar département boobu nag faaw ñu xool yan commune ñoom lañuy la